di leen nuyuwaat di leen ziyaarawaat di dellu euh, kàddu gi jox la nga jukki doore ko Walf Quotidien waaw lañ koy dellu euh, lañ koy lañ euh, moom mi nga xam dafa xëyee amal ab taxaw seetlu wertu jëmale ko ci opposition bi ne fu mu toll ngi nekk di waxtaan ngir jéem a taxawal ab kuréel goo xam daanaka dafay regrouper ñëpp ñi nga xam opposant lañu lañ ci jub rek mooy fese ne jàkkaarloo ki nga xam moo di président Macky ci yoon wi nga xam la jël noonu la ko yéene kaay ñuy jëfandikoo ci xorom dafa jéggi dayo daanaka eh, mm. eh, gi di ci amal dafa xëyee dellu si ci anomalie gi nga xam moom la ñu ko fële ci DGE ak it eh, équipe bu bees bi nga xam ne la mu soxal Sénat mm-hmm. opposition bi jamono ji au lieu ñu booloo nekk benn waaye kenn ku ne yaa ngi demal sa bopp tax président Macky Sall fu mu dañ ko xàllal yoon wi muy déroulé ay plan am noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale euh, yéen kaay gi nag xëy dellu soit ci installation membre Sénat euh, président Macky Sall ngay sàkk ci moom mu annulé dossier boobu euh, maanaam décret boobu la ñu jàpp ne kon jaarul ci yoon noonu la ko yéen kaay gi di la tribune xëy fësale. ñu dem ci direct news. bu dee yéen kaay gi di direct news sérieux c'est quoi ton problème. bon direct news ah waaw direct news dafa xëyee dellu si waat ci coow maanaam ci euh, nja euh, secteur njàng mi ñu ne jamono ji daanaka yëngu na noonu la ko yéene kaay gi xëy fësale ndax boo demee ci université jamono ji ña ngay wane ci dem grève euh, yéene gi ne bu ñu deful ndànk année blanche kon dana am ci université yi ndax ndaje bi nga xam doxoon na démb ci diggante syndicat gi ëmb étudiants yi ak it waaye dama fi jële laat jóob waay nee na est-ce waaw jël ma direct kon mu gaaw. oui parce que bi front social. la ñuy la front social la boo xam ne nii waaw jëlal ma fi waaye un cadeau empoisonné jox ma jox ma direct sëñ ci ginnaaw léegi ok waaw mais bi ci ginnaaw arrière plan bi ci ginnaaw. Mhm. Euh, léegi léegi bon ñu continuer ah, wax itam ci direct news direct mhm. news dafa xëy dellu si waat ci contestation gi nga xam ñu ngi koy nemmeeku jamono ji ci université ak ci lycée yi yéen kaay gi ne bu ñu deful ndànk ay yëngu-yëngu dina am kon ci université bi lee force sociale bi jamono ji yëngu noonu la ko yéen kaay gi direct news ay xëy fësale yéen kaay gi nag bu ñu deful ndànk année blanche dina am ndax daje bi nga xam dox na démb ci diggante syndicat gi ëmb jàngalekat ci nekk ci daara koy ak ministre bi ñu dénk wàllu euh, wàllu njàng ma koy mi mbir yi daanaka ci ak fant siiroolu mujjee noonu la ko yéen kaay gi di direct news xëy fësale ñu dem ci euh, euh, xët bi lee di l'info yéen kaay gi di l'info dafa xëyee dellu si waat ci situation euh, bi nga xam ne ni euh, euh, situation sanitaire ak politique bi nga xam Ousmane Sonko mu ngi koy dund jamono ji waa waa UIP di union interprofessionnelle bi nga xam daanaka dafa regroupé ci tolloog téeméer

bi nga xam ne am na ci ministère de l' ndax yéen kaay di Sud Quotidien xëy tey ji daal ci amal ab taxaw seet waaye yéen kaay di 24 heures conseil constitutionnel Cheikh Tidiane Kouliba moom moom la ñu tànn ngir mu wutu Abdoulaye Sylla mi nga xam président Macky Sall ko tànn def ko mu doon njiital Sénat noonu la ko yéen di 24 heures xëy fesale yéen kaay di critique xëyee dellusiwaat ci lu jëm ci euh, coop Euh, ci euh, la nga xam ne ni moo di euh, projet président Macky Sall dafa mel ni que am na si ay fonctionnaires yoo xam ne ni

Euh, ci coppite yi nga xam ne état bu Sénégal jël nañ ko maanaam coppite yi nga xam président Macky Sall def na ko ci gouvernement bi waaye bi ko si xaw a jaaxal mooy euh, bi am ca ministère gi xëy tey ji daal ci amal ab taxaw seetlu yor yor yéenekaay bàyyi nañ ko mu bi këram Diop Taïf mi nag ngeen ñu ko xamul mooy waaja taxawoon ci buntu caméral di def ay live moom lañ jàppoon waaye finalement mujj nañ koy bàyyi yarga si ak yeneen i patriote ñoom jamono ji ña nga des ca kaso ba noonu la ko yéenekaay gi yor yor ko fësalee euh, waaw mu ngoog ah yow mu ngoog léegi euh, Pape Malick Ndour mu di jëwriñ ñi nga xam ne ñu dénk wàllu euh, ndaw ñi ak emploi ma ngay xamal daal taxaw nañ ab grande offensive pour jëm ak immigration bi

ngir xeex ak mbëkk mi lee saakoon daal ci jëwriñ yi moo xam wàllu économie la wàllu emploi ak yeneen yu ni mel ñu jël daal ay euh, matukaay ba su ko defee départ ñu daal leen nettiraat les biir réew mi noonu la ko yéenekaay gii di la quotidien xëy fësale yéenekaay di te dañ gis ne ne sénégalais yi jamono ji la ñuy ñàkk ci euh, seen bakkan ci géej gi jéggi na dayo ndax euh, am na ci benn gaal goo xam ne ni daanaka ma nga bàyyeekoon fële ca Bargny ab yaboon lu ci tolloog ñetti téeméeri doomu aadama neen daal ñaar fukk daal ñoo si jot a mucc ñi si des ñëpp ñu ngi leen wër waaye mu ngi leen teg bët mm-hmm. mu nekk nag lu doy waar tax yéen kaay gi lanket xëy tey ji daal ci amal ab taxaw seetlu euh, wax yàppante yi nga xam ne meeku nañ ko démb fu la ci Touba am ci boo xam jot na cee ñàkk bakkanam kaay gi ne euh, benn waaye daal boo xam ne doon jaay pon moom lañ fi bëggoon a interpellé far nag mbir yi mujjee jur ay jàppante benn waaye daal jël daal di jël am doom daal di koy dóor ab benn Baay Faal euh, ba waaye ji nag mujjee na ñàkk bakkanam fukk ñaar ci ay doomu aadama teg nañu loxo noonu la ko yéenekaay gii de source ak xëy fësale soxna Aïcha ñu dem réew mi quotidien eh, réew mi yéenekaay dafa xëy dellu siwaat ci ñi nga xam daanaka ay toxkat la ñoo ah. def bañ nekk xale ba tey ñu ngi tox cigarette waaye jamono ji bëgg nañ cee génn mu tëleen këcc moo tax yéenekaay gi xëy tey ji moo tax fu mu toll nii mënu ñoo bàyyi tux ñu bari si ñoom nee nañ fu mu toll na bàyyi ko daal du leen jafele donte la bëgg nañ ko noonu la ko yéen kaay gii Times yoo xam ne ay réew mooy avancé la ci wàllu économie hmm. yéen kaay gi nag xëy dellu si waat xam ne waa ko ci atum rapport euh, ci rapport ak la nga xam moo ko lépp kon mu ngi Sabali euh, daanaka carrière am mu ngi ci danger noonu la ko yéen kaay gi xëy ndax jafe na ci moom mu joué ñaari match yoo xam ne gaañuwul loolu nag tam war nar koo jur nag ay jafe-jafe ci carrière am noonu la ko yéen kaay gii di stade xëy fësale wax ci combat gi nga xam ne la ñu waxtaanee jamono ji mu soxal combat Balla Gaye 2 Aziz Ndiaye nag yëkkati ay kàddam daal di leer wax ne fu mu toll nii Balla Gaye 2 amul benn combat noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale Baba Galle Balla Gaye 2 jotul avance boo xam ni war naa dox ci digganteem ak Eumeu Sène noonu la ko yéen kaay kon xëyee fësale en tout cas daal nee na ñu ngi xaar diggante Tapha Tine ak Eumeu Sène képp daal ku ci daan Balla gay 2 noppi na ngir jël. Tapha ak ak Eumeu Sène muy am dimanche. ku pour jël hmm. la. Hmm. que Eumeu Sène daane ah amu daan na ko ñaar yoon de <laughs> amu daan na ko ñaar xam nga mbëri aussi il faut ñu comprendre dafa amante ay bête noire de waaw <coughs> ay bête noire amu est-ce que est-ce que est-ce que que nekkul ne mooy bête noire Balla Gaye 2 waaw loolu de comme comme comme ni Modou Lo Modou Lo nekkee comme Balla Gaye 2 aussi mu nekkee bête noire bête noire Modou Lo <laughs> non c'est te te te Modou aussi mu ngi bëgg a nekk bête noire Ama. waa Pikine sax. te benn yoon dong la ko daan yow ah, tamit. daan na ko mbapat dégg naa. Ah, daan na ko mbapat waaw mbër moom bu la daane ñaar yoon. waaw du tee da ciy defaruwaat de. moom xale la woon. <laughs> du tee da defar defaruwaat mais ñoom ñaar wu ñu. soog ñu daan Modou Lo ñun Modou Lo daf ñoo yëpp ñun waa Pikine. <laughs> ah non <laughs> xam nga benn ko bàyyi ak Boy Niang xam nga xam nga ko sax. xam nga. mbër Pikine yëpp dajaloo song ko daan ko. solution nga xam nga nga li may faral di. il faut qu'il arrête waay Boy Parcelles bi. gis nga gis nga du Boy Parcelles sax c'est xam nga dafa doon ko dafa gis nga hygiène de dafa baax ci doomu aadama. surtout ça. Euh, nit ki lépp looy nekk da nga koy gëm. Mm-hmm. te bu ñu waxante dëgg suñu mbër yi bari na si ñoo xam ne waxtu wu ñu entraîné c'est parce tout simplement dañu am làmb dañu am mbër mais bu fekkente ne amuñu làmb daanaka dañuy def maintien tout simplement. Mm-hmm. mais ñi nga xam dañ ko seedal nee nañu moom mu am làmb mu ñàkk am làmb chaque jour mu mm-hmm. da ko gëmal boppam. moo tax daan na Ama Baldé waaye dana daanaat aussi ñeneen ak ñeneen. parce tuuti na certes mais damay faral di wax ne. dooley góor du ci yaram. nit ki des fois ko ëpp volume fekk moom moo ëpp doole ñetti junni yoon. Mm-hmm. moo tax chaque jour may gars yi nañu avertir nañu bàyyi xel. Mm-hmm. Modou Lo mm-hmm. ëpp ko doole ëpp ko yaram taxul nga ëpp ko doole. waaw te mbër la aussi boo xam ne nii pour nga mën koo daan il faut nga sérieux ci li ngay def. Ah mais boo sérieux wul non doo ko mës a daan ci àddina moo tax tiitram bi gën eh, mm, a yàgg ci moom de <laughs> lii moom du continuer mm, du caw moo ko ciy génne mais na na na xool ci mbokk ak nawle <laughs> nawle dafa foor <laughs> xam nga dafa baax quoi nit ki hygiène de nga dal duggoo ci yenn surtout ça ah, mais bu ñu fàtte tamit booy ñaa ngi ñëw de mm. ça faut pas l'oublier également on a Boy Niang <laughs> le problème de Pikine xam mooy problème Pikine lan la problème bu Pikine mooy que dañoo boolawul boolootuñu boolootuñu nekkuñu benn mooy surtout ça problème tey dañu ne union mooy def force loolu mooy ay nit mu leen dëkk benn dëkk ngeen dëkk benn Pikine su ko defee kenn ku nekk xaajaloog morom ma mhm. bu sa morom xewle yow daanaka doo fa dem mhm. avec ça ngeen ne yéen bëgg ngeen bëgg ngeen conserver titre roi des arènes mais mënta ne mënta ne loolu nag moo diamétralement opposé ak li xew ca mhm. parcelle parcelle tey boo xoolee ku ci mel ni Modou yaa ngi gis Papa ma nga ci ginnaaw franc ma nga woon ci ginnaawam cest à képp koo xam ne am mbër nga bu taxaw yaa ngi woon ginnaaw Modou di ko jàppale te jusqu'à présent man mosuma dégg fu waa mbëru parcelle xaajaloowee xaajaloo te parcelle ci boppam sax ñu ngi ci ginnaaw moom loolu force la mm-hmm. léegi nag force boobu nag nit da koy exploité loolu nag amuñu ko Pikine mm-hmm. bu fekkente ne bëgg nañoo jot ci titre roi des arènes il faut que ñoom ñu nangoo dool doon benn tey jii bu fekkente ne Ama Baldé mu ngi waajal combat ak Modou Lo Boy Niang ñëw fekk si Ama Baldé di contact ak moom mm-hmm. waaw man loolu laa gis que Boy Niang ak ëmb ak ak Modou Lo ñoo xawoon trop physique. Mm-hmm. kon Ama Baldé di contact ak Boy Niang ko avantage la ci moom. Mm-hmm. comprendre nga. ku ci mel ni Eumeu Sène aussi di ñëw di contact ak Ama Baldé. Mm-hmm. parce que Eumeu aussi dafa xawoon trop physique ak ki nga xam ne ni moom moo di Modou Lo. te il a eu à pratiquer Modou problème. léegi yu mel noonu moom mooy tax nit am kii mais bu fekkente ne kenn ku ne dafay bari yoram. di wuyoon a Pikine Pikine la. Mm-hmm. da ngeen di coow rek day métti rek waaye. Mm. en tout cas <laughs> da ngeen saxaar rek waaye doo leen tàkk mu ah. que am na njëriñ ñu koy waxtaanee également nañu waxtaanee également tolluwaay réew mi parce que tamit eh, xibaar yi bari na te wute eh, ku ci nekk ak fi nga génnee li ci gën a fas si bokk na ci chamboulement yi nga xam ne ni sëy naa nemmeeku nañ ko ci direction yi ci ministère yi eh, c'est presque à la tous les journaux gis nañ aussi Walf Quotidien xorom si au début à la fin toute xorom si nga xam ne moo nekk ci yaramu nit yi loolu aussi il faut qu'on en parle ak hypertension artérielle yi nga xamante ni ça prend de l'ampleur et d'après euh, yenn ci professeurs yi mun naa sax cité kenn ci mel ni professeur Seydi waxoon na fi jamonoy Covid ne la situation risque d'être compliquée parce que la plupart des Sénégalais 40 pour cent bi yëpp dañuy vivre avec des maladies chroniques sans le savoir et maladies chroniques yooyu booy seet c' est l' utilisation abusive du sel du sucre et également euh, li nga xam ne moom moo di euh, graisse bu bari bi donc yooyu aussi il faudrait que mën nañ ci mën nañ ci taxaw mais mën <laughs> naa ne mën nañ ci brosser un peu rek dañ waaw wax nañ aussi ci bizarre bizarrerie yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci biir ministère de l' intérieur à quelques euh, mois mun nañ sax à trois mois de des élections moins de trois mois de l'élection présidentielle on se rend compte que on fait des changements yoo xamante ne est-ce que jaroon na ko est-ce que àndut ak lees waxul ak lan lañ ci mbëbët loolu aussi war nañ ci mën a statuer immigration irrégulière bi Seydina wax nañ ci démb démb yaa ngi ci doon brosser mais peut-être mën nga ko ubbee un peu parce que démb da nga ko commencé woon rek mais yeggali woon ko mm-hmm. mais tey dañu utiliser quand même benn terme boo xam ne sénégalais yi ñu ngi koy commencé miin mooy l'heure est grave mm-hmm. l'heure est grave alors peut-être wax ci li xew tamit ci démb Touba Baye Fall bi nga xam ne jot na faa ñàkk bakkanam ci justice bu nga xamante ne bëggoon nañ ko defal seen bopp est-ce que aussi du complication waaw waaw l'heure est grave comme ni nga ko waxee mhm. bon wax dëgg yàlla xale yi ku leen jurul yërëm leen na ah. par rapport ak situation bi ñuy dund jamono ji mhm. te li gën grave mooy que immigration clandestine bu ñu ko doon wax dañu ko doon wax ci xale yu góor yi ak góor ñi mhm. mais tey ji dem nañ bi finalement léegi jigéen ñi ñoom ñoo gën sawar ci immigration clandestine te li gën a garaaw da ngay gis nit koo xam dafay dem yóbbaale ay doomam mm-hmm. mu génn àdduna mm-hmm. ay doomam génn waale ci àdduna nga gis koo xam dafa dem ñu dellu soit ko mun na damay delluwaat mm-hmm. lu tax mu ne dafay déplacé parce que nee na amatul yaakaar ci biir Sénégal moo tax chaque jour bu ma déggee ci biir conseil des ministres président Macky Sall jël ay décision naan dafay xaajal ay dafay jël ay ay mais damay naan mesures yi daanaka yem pale kese la yem. mais bu génnee fàtte nañ ko. du am suivi. Sénégal bu mu demee Sénégal ba tey. waa Benno Bokk Yaakaar ba ñu nekkee ci pouvoir ba tey chaque chaque jour ñu jël ay mesures. ne dañu xeex ak immigration clandestine. mais daanaka bu ñu ko jëlee ba noppi dañuy pare daal di koy jël daal di koy taxañ fële. nekk ci lu leen neex. man li ma gëm mooy. te dara du ko dindi. Sénégalais fu mu toll lan moo leen mën a terewaat fii ci teg tegetaat fii ci Sénégal mooy yaakaar espoir mais tey jii boo côtoyé xale yi nga côtoyé nit ñi da ngay xam ne ne actuellement nii dañoo amatul yaakaar ci seen réew yaakaar boobu tey jii moom moo tax ñuy dem di ko uti feneen parce que xam nga dara gën a métti nga nekk ci ab barab di wax faa di fa liggéey nga am fa sa wërsëg di fa am lu ne état bu Sénégal ñëw ci ay mit magam fexe ba secteur boobu la mu fexe daal koy jël daal di koy jox ñeneen te loolu dafa garaaw loolu mooy li am ci wàllu forage je veux dire population bu jokkul mbelbuk benn localité la boo xam ne ni ma nga nekkee foofee ca diwaanu Kaffrine. Ndukumaan waaw Ndukumaan Kaffrine. wàcc si mbedd mi ne manifester xam naa lu tax ñu doon manifester c'est parce que seen forage ñoom ñoo ko moomaloon seen bopp mais état bu Sénégal jël forage bi jox ko société bi ñuy naan xaw ma Flex Eau mu jël courant bi aussi jox ko dëkk bi ñu euh, société bi ñu naan era xaw ma ara mais li gën a garaaw ci mbir yi mooy Ablaye mhm. ay facture courant wala ay facture ndox yu toll ci cent mille jàpp cent cinquante mille francs CFA mais population boo xam ne ñoom amul lu dul mbay nekk au fond fond du Sénégal di ay baykat mais boo leen joxee ab facture cent mille francs mais fan lañ koy fayee oh, lor nga leen c'est-à-dire que situation boobu lay Sénégal yi dund jamono ji et puis li gën a garaaw mooy que ñu nekk ci jamonoy parrainage ñu dugg ci population bi di leen gëmloo loo xam ne nekkul lu dëgg ci ñoom di leen dig ay ambulance di leen jox ay ambulance di organiser ay tournois de football dajale femmes yi di leen jox ay financement wala di leen jox ay machine à à machine à xaw ma lan à coudre xaw ma à dumkate uniquement tout simplement pour que vraiment ñu mën a récupérer seen candidat pour am ay parrainage et puis c'est ça loolu loolu c'est inhumain c'est que munoo bàyyi population bu ñu nekk ci ay jafe-jafe toppatoo woo leen xooloo leen nga bàyyi ba nga xam ne nous sommes à deux mois des élections nga ñëw wëlbatiku ñëw di leen gëmloo moo tax effectivement population bi si boppam ñoo war a am seen fulla am seen fayda gis nga man doo fi nekk faale woo ma lu toll ci fukki at ak ñaar élection yi des ñaari weer ngay ñëw di ma seet seet si ma pour lan mm-hmm. et boo ñëwee lan ngay teg suma loxo et puis boo ñëwee lan nga mu war a dig loo xam ne yow di nga ko def yow. te defatuñu lu yà defatuñu yàlla defatuñu ngir yàlla mais dañ def ngir seen intérêt. parce que mënu ma comprendre ab dëkk boo xam ne ab village la. nekk ci biir Kaffrine. Kaffrine la fa nekk ci ay ministre kenn xamut nu mu toll. ministre de la culture Kaffrine la ne. ministre de la de de l'habitat Kaffrine la ne. ak yeneen ak yeneen ñoo xam ne ay kilifa yu nekk biir diwaanu Kaffrine. sans oublier les DG. mais ce qui grave mooy Kaffrine mooy dëkk bi nga xam moom moo gën a pauvre ci biir Sénégal. te li gën a garaaw aussi bu ñu nee élection daanaka Kaffrine mooy bokk ci dëkk yi nga xam ñooy njëkk a pouvoir te li am Kaffrine moo am Kaolack moo am un peu partout ci biir localité yi chaque jour dañ leen di délaissé bàyyi leen ginnaaw duñ leen yëg duñ leen faale mais bu élection ñëwee ñoom ñooy woteel pouvoir bi ci benn ci benn pourcentage boo xam ne dafa jéggi dayoo c'est nag il faut aussi ñoom it ñu xool seen taxawaay loolu soxna Aïcha il fallait que ñu parce que situation bi nga xam ne sénégalais ñu koy dund dafa jéggi dayoo leneen aussi li ma ciy boole soxna Aïssa parce que bëggoon naa wax lu bari mais il faut mu ci fii fan la euh, <laughs> fan la lay jox fii de xam naa ne est-ce que du ci kaw ga kaw ga hmm. fii Kër Massar la fi nga dëkk yow Kër Massar gii ci capital bi. fii école bi ne faa dëkk man. Hmm? école bi fii fi mu nekk nii ci cité boobu laa dëkk man cité bii cité gendarmerie cité bii fa la Assome Diatta dëkk. Hmm. Assome Diatta kii mooy imaamu dëkk bi fii cité bi école bi est-ce que yow mën ngaa nangu ci jamono ji ñu toll tey ji Dakar. Dakar Dakar. de surcroît département bu Kër Massar. ñuy nangu ak par abri provisoire di am fii. gars yi liggéeyuñu. bilaay walaahi dañuy tappalee. c'est que ñii nit ñuy c'est que nit ñuy fo c'est que nit ñuy fooyee dafa jéggi dayoo. sekk que ñii dañoo gëmul quoi. dañu respecté wul quoi. dafa mel ni que daal ñun suñuy doom ñun ñun war ñoo jàng ci ay taax ñun. mais suñuy doom ñun li ñu mérité woo mooy di jàng ci ay sàkket ci dëkk boo xam ne dañ ne la dafa nekk ci biir Dakar Kër Massar di département nekk ci biir Kër Dakar ah moo tax lii dama ci interpellé président conseil départemental bu Kër Massar interpellé aussi le maire de Kër Massar Nord mhm. interpellé aussi le ministre de l'éducation nationale Tout à parce que lii dafa ñaaw rafetul mais Kër Massar ci biir Sénégal la bokk ci biir Dakar la bokk mhm. mais naka lañu war a seetaane ay abri am Kër Massar mais lii dafa ñaaw lii moom te li gën a garaaw ñoom ñooy wëlbatiku tey jii sol seen i daal ñoo dugg ci population bi naan dañuy jëm a campagne ñun. Mhm. ñu di aussi ñu nangu di topp seen ginnaaw ñun. mais pourquoi wala fi dañuy ne ku la nekkal ci naaj bi nga nekkal ko ci ker gi. Mhm. mais ñu nekk lu luñ ci naaj bi seen bopp la ñu fi nekkal. kon il est temps à ce que vraiment ñu wan leen ne ñun aussi ci Sénégal la ñu bokk. loolu moo tax may demander Sénégalais yi mhm. nañu yeewu Ablaye. jot na moo il est temps à ce que ubbi seen gët yi di xool gis nga Sénégal. sénégalais yi ñoo ko mën defaral seen bopp. Mhm. mais ci kaw ñu am seen fulla am seen fayda. Mhm. Sénégal nañ jàpp ne santul Sall. Sénégal santul Ba. Sénégal santul Sonko. Sénégal santul Abdoulaye Ba Sénégal xam nga lu sant ab république la. Mhm. waaw ni nga ci amee wàll man noonu laa ci amee wàll man kon du ma nangu benn yoon Sénégal gi ay groupuscule de daal di koy accaparer di def leen neex Sénégal war ñu koy nangu. moo tax il faut que sénégalais yi éveillé wu jóg ne seen destin ñoom ñoo a jël en main mais seetaan actuellement nii. ay nit ñoo xam ne seen intérêt bopp kese la daañu def seen jéem a lobby def seen stratégie ba fexe bu accaparer au pouvoir bi toog fi ñu war a dundal encore ay jafe-jafe pourquoi lu tax. te te dinaa li ci gën a yéeme ci image bi dama foogoon ne dugub lañ ci denc wala <laughs> ngooñ. ndax lii gis nga paa ba li nekk ci ginnaaw. mooy imaamu quartier mooy imaamu dëkk mooy imaamu ratib bu dëkk ba. kii di wax ni mooy président kii ba. kii dama ko wax dama ko def rek dama ko servir d'exemple. ci yeneen école yoo xam ne ñu ngi biir Dakar dund ay jafe-jafe mhm. ak yeneen école yoo xam ne actuellement ne ñu ngi ci biir Sénégal yi nekk ci abri provisoire mhm. ndem seen dakaar moo mën a dund ay abri provisoire astament dëkk yu nekk ci àll bi mais mais mais la ko mun a saafara bu ñooñu nguur mhm. bu ñu nangu woon tey seen doom di jànge fii ci réew mi daañu xam tolof tolof yi am ci njàng meek njàngale mi ñooñu nguur bu ñu nangu woon di fajoo fii ci réew mi daa ñu xam fuy metti ci paj mi ñu nguur bu ñu nangoo di eh, investir fii ci réew mi daañu xam fan mooy metti ñu mun ko faj ah mm-hmm. fekk lii amul nag saafara du mun a am te image bi naa baax na nga fësal ko ndax euh, bett ñu bëree bëri mm-hmm. Kër Massar bi nga dëkk foogoon naa ne Kër Massar et puis département léegi département mm-hmm. lii muy am ci dëkk bu ñu naan cité gendarmerie Kër Massar Kër Massar waaw nekk ci biir Kër Massar te lii dama ci interpeller les autorités locales yi nekk Kër Massar bu ñu ne campagne électorale ñëpp jóg naan dañuy campagne électorale ñëw la dis la diglu diglu lu tooy xeeb te fekk la def dara du ko am te li ci gën a grave c'est en de la population population bi ñoo war a yeew su ñoo am seen ful ñoo am seen ful lii nag moom moo tax Sénégal gàddaay seen réew grand frère lii moo tax Sénégalais yi di gàttaay di dem seen réew parce que Sénégalais amatuñ espoir ci seen réew mm-hmm. Sénégalais amatuñ yaakaar ci seen réew Sénégalais suñu autorité teggatuñ suñu loxo loo xam ne war naa mën a tax tey ñu toog fii est xale bi nga xam ne mooy jàngee fii moom mm-hmm. ci ci sàkket bii mm-hmm. sa doom yow bi nga xam yow ministre nga jël ko di ko yóbbu ci école yu mag yi moo tax may des di dal ci nga fa nekk ci ay kilifa ci dëkk ba dama ne lii yéen a ko encouragé parce que li ngeen ko encouragé am na tax parce que yéen ñëpp kenn ku ne yaa ngi jël sa doom daal di ko yóbbu ci école privée yi. Mhm. mais la. Mhm. dañ ko fi instauré pour la population de la cité ngeen di jël seen doom di ko yóbbu ak privé pourquoi mais xeex leen ba su ko defee école bi daal di ko instauré seen doom yi dafa jàngee. nit ki da ngay bëgg li nga doon. nit ki da ngay am fierté ci li nga doon. mais c'est dommage tey jii man am naa sama doom bu jigéen boo xam ne ci sàkket bii lay jàngee. Mhm, mhm. mais am naa possibilité yóbbu mais ci école bii lay jàngee. Mhm. le directeur dafay am sax fierté des fois dama citer ak un exemple. ñoom nañu amee ay possibilité yóbbu seen doom école privée man noonu la am possibilité pour yóbbu sama doom école privée. mais amul sens nañu jël seen doom yóbbu leen ci école bii ñoom. wane na ñoom am nañu fierté fii su ko defee ñu bokkandoo xeex combat bi ba su ko defee école bi ñu defar ko mais c'est dommage une population boo xam mu ngi def plus de quatre mille cinq mille habitants di am abri provisoire te li gën a garaaw ngeen di wëlbatiku di côtoyer ces ces politiciens là c'est ça ce qui est aberrant man boo ma respecté wul joxuma cër du ma la respecté du ma la jox cër loolu mooy Sénégal lii moom moo tax tey jii mhm. ñuy non njàmbatu tey bi amati na solo amati na lii moo tax ñuy gàddaay Ablaye mhm. lii moo tax ñuy génn réew mi tout à fait waay mhm. lii la lii moo tax ñuy gàddaay lii moo tax ñuy génn réew mi parce que bu ñu demee ba nga xam ne ñi ngi war a jiite ñun talatuñu ñun leen tal jamono ji actuellement nii mooy seen pouvoir naka lañ def ba conserver ko ñun Sénégalais ñu ànd ci ak ñoom et puis c'est ça ce qui est mm. te nag maa ngi interpellé aussi Amadou Ba que parrainage am yi ñu koy jox na ko xoolaat parce que bëri na ci ay parrainage yoo pare ay nit ñoo xam ñu ngi taxaw naan ko am nañ plus de 3000 parrain plus de 4000 parrain wala plus de 5000 parrain mhm. dañ koy lëeree way ñu si bari si ñoom côtoyuñu population bi population bi parrainé leen mhm. ñu si bari si ñoom ay stratégie la def bu am ay parrain mhm. da ngay dem ci ay mbootaayu jigéen ñu naan leen financé ñu jox leen seen carte d'identité nga profité si daal di koy encaissé di koy daal di c'est-à-dire que fu mu toll nii façon ñu dund gu ne ñu ngi koy def pour jéem a rendre l'heure le candidat du pouvoir moo tax na ci bàyyi xel bu fekkente ne ci pareil yi la war a def benn genre baromètre ne ne ci la fas yéene jàll ci élection présidentielle yooyu juum na. mais mais ñay pare te xam ne ña koy pare ne jamono jii dañ koy léere parce que ñoom demuñu sur le terrain dañu nekk di def ay falsification yu jéggi dayu sur le terrain te li ñu koy wax ni c'est en connaissance de cause parce Ba na ah. wu. ci ñi koy parrainé. Seydina directeur de campagne Amadou directeur de campagne Amadou Ba directeur de campagne Amadou Ba. moo la gën a xam ne moo la gën a xam ne Amadou Ba pare parrainage populaire bi doxul ci moom moom wax na ko. nee na que le mieux sax moom moo ñu dem parrainage. Euh, parlementaire parlementaire. parce que junj na ko. ndax ndax wóolootuñu gars yi wóolootuñu gars yi. Euh, donc loolu rek kon xam na ne voilà. heureusement xam na. <laughs> xam na parce que yàgg na ci politique. heureusement xam na léegi Seydina euh, boobu li mu wax am na solo nee na ñooy parrainé ak ñooy voté bokkuñ. bokkul alors que taxul loo parce que gars yi di voté bokkul foofu la gars yi di mais mais aussi des fois nga gis ay politiciens yu ngi koy servir de baromètre. Ah. Sénégalais moo ne gis nga Sénégalais ils sont dafa am ay politiciens yoo xam ils sont tellement ingrats que ñoom yu xaatuñ dara lu may seen bopp quoi seen cadre bopp loolu mooy intéressé léegi nag fi may jeexalee soxna Aïssa mooy modification bi nga xamante ne changement bi am ci biir administration bu Sénégal. man gisee démb dama ne que moom day day dem. c'est une <laughs> ñëpp di laaj. non question la day dem quoi. wala aussi dafay dem est-ce que mu bëgg na jàmm Sénégal quoi. parce que euh, mënuma comprendre yow nga taxawal Sénat boo xam ne nii da lay wóor ne yow loi bi nga ko tekk décret bi nga ko defee décret bi gars yi dañ ko attaqué wax ne di jaaru ci yoon ñuy xaar au nga jëm ay changement yow li lay intéressé mooy Abdoulaye Sylla bi nga xam moom nga jëlee conseil constitutionnel na nga ut ko remplacer mais ña fa nekk ñu tudd leen ne ay politiciens la jow loolu intéressé wul mm-hmm. Mm-hmm. te lii et puis li gën a garaaw mooy que ña nga xam ne ñoom la ñuy chamboulé ci administration bi di ay fonctionnaires mais lan lañ def mm-hmm. c'est une bonne xam nga li may jàngal. moom mooy que révolution mu ngi commencé di juddu ci administration bi ndank ndànk am na ay bañkat. ni mu amee ci Sénat am na ci ay fonctionnaires yoo xam ne comme tel ni commencé na def révolution parce que man chamboulement bi loolu la may joxam ah. ci biir fonction publique am na ci ay fonctionnaires yoo xam ne nii taxaw nañu pour xamal président Macky Sall ne ko réew mi moomatoo ko sa ay jeex na. Mhm. kon bàyyi ñu doxal nu mu noonu. léegi boo gisee chamboulement bi am c'est parce que ñooñu ay récalcitrants lañu ay nit lañ xam ne nii nekk ñu ay benn wi wi moom tax ñu changé ko moo tax ñu changé parce que man jàngat mhm. te ña nga xam ne actuellement ñoom la teg aussi nañ jàpp ne kii nguuram jeex na mhm. buñ leen def loo mm. wala ñu wax loo leen loo xam ne bu ëllëgee dañ leen ci xeeb wala dañ ci topp mm. président bi deux mois moo ko fi dese yéen kii dafa am gis nga kiiwul kenn du ko topp ci dara mhm. parce que loi bi fi nekk da ko aar waay kenn du ko topp ci dara mhm. kon loi bi ko ñàkk moom fekku leen si yéen ñi nga xam ne yéen ay fonctionnaire et puis war a des fii ci Sénégal parce que sur et kii bu fi nekkatul dem na yoonam mhm. léegi yéen la fi ba kon yéen ñi fi nekk ay la yéen na ngeen jëfee na ngeen natt seen responsabilité xam ne ne bu ëllëgee mm.

ci wàllu ngor ci wàllu pas-pas Mamadou Dia nga ci tudd tey jii booy war ci wàllu ngor ngay tudd politicien Mamadou Dia ngay tudd bu fekkee ne yaa ngi wax ci wàllu politique wala ngay tudd ay problème woykat ak ñoom seen am yeneen politiciens yoo tudd mais ci wàllu éthique ci wàllu déontologie ci wàllu ngor boo ciy tudd jii si pouvoir si ci ay politiciens Mamadou Dia ngay tudd mhm. mais loolu dara dàqu ko mais loolu moo ma gënal ay millions kon je pense bien ñoom ñi nga xam ñoom la ñu jël tey di leen fal nañu xam ne lii ñu leen di fal tey jii bés dina ñëw yàlla dina leen ko laaj. te kale di fal na jàpp ne moom mandat am jeex na. dafay dem fi de mois. kon bu mu leen fi defloo wala mu wax loon fi loo xam ne bu ëllëgee mën na leen porte préjudice porte préjudice seen njaboot. te te nguur nagum ndono la. waaw fa la jeexale nguur nagum ndono la buñ la ko dénkee waroo wóolis. dañ ko donnee ko ci Diouf mhm. Diouf donnee ko ci Senghor mhm. euh, te lu mu yàgg-yàgg day jeex waaw ndax euh, mhm. lu nuyoo tàggoo waaw nag euh, dëgg yàlla man daal leen de laa ci wax Seydina waa ji moom man day dem ah, de <laughs> ko de <laughs> ah, na day dem nañ jàpp ni day dem rek man demam leeratuma te wax dëgg yàlla te am na ñu fa doon njort ne ndax dem gi leer na ci moom hmm. xam nga nag luy jeex du neex. luy jeex du neex. nguur gi tamit loolu am importance. njeex <laughs> vraiment da ngay dem rek dafa metti dafa metti damay dem bàyyi la ak seen réew rek. yaakaar naa war nga ko mën a defar ba lépp bandang te yow c'est la première fois li am ci démocratie. yow yaay tëgg élection yoo xam ne doo ca bokk. Mm-hmm. waaw rafetal ko nag tëgg te def. yàlla woy rafet mission accomplie nga war mën a nekk ci histoire bi. suñu dund boo wutu sa xale yi suñu doom yi mën nañ la jàng. parce que président Macky Sall premier Sénégalais à avoir organisé une élection sans y participer. Mhm. élection yu libre yu transparente yu inclusive. nga waroon ko def ci. bàyyi ñëpp bokk ku war a bokk bokk ku warta ku warta ku warta bokk nga nga génne ko ci ci ne tey. nga nekk nga toog neutre. nga nekk ndey ji seex. nga tekk ndey ji seex tëddee njaaxandaay waaye ngay def ak nasaka noot ci. njuut njaaj tamit. te yow kon nga ne carrément bàyyi nga njuut njuut njaaj <laughs> moo ko waxoon te c'est ses propos de. moo ne man ba tollootuma fu may njuut njaajee bàyyi naa njuut njaaj waaye daa mel njuut njaaj gi des na di sàllaam toora booru gédé est ce que tamit doonu bàyyi suñu réew mi ci hmm? tamit bàyyi ñu balaa ñoo wax lu ëpp Falla Fleur génn naka sax ñun bëggu ñoo dem ñu ngi lay bu baax a baax si doon xonde bu Aïssa euh, gis mhm. gis nga nit lépp looy def da nga siy jaamu yàlla booy jaamu yàlla nag ci mbir bul xaar loola ci mën a fekk ëllëg mhm. parce que man li ma gëm ci àdduna mooy que ku gëmul ne da ngay yeewu mm-hmm. man gëmuma ne mën ngaa teg Seydina Omar Ba mm-hmm. lenn mm-hmm. honnêtement ku gëmul ne ku ma mën a assuré ne di nga yendu suba ba ngoon jot kon mënoo maa gëm mënoo maa mënoo maa xëpp ci lenn parce que àdduna noonu la nañuy gëm yàlla ba noppi wóolu ko mais Sénégal c'est dommage que gars yi gëm yàlla mais gëmuñu ko wala bu ñu ko gëmee tamit wóolu ko loolu mooy problème bi Euh, l'essentiel ak lu ci mënti am mm-hmm. na woy bi rafet rek mm-hmm. mag ñi de dañuy liggéey na macha allah liggéey bu am solo mm-hmm. parce que def na fi loo xam ne wax dëgg yàlla dañ ko doon gis ci ay réewu tubaab yi tey ji indil nañu ko fi indi nañu fi terre indi nañu fi berte boo demee ci àll bi am na ay piste de production am na ci ay dëkk yoo xam am na courant def na fa courant am na am na loo xam ne def na ko fi ñu ko ci sant di ci gërëm waaye li ñu koy gën a sant d'abord di gërëm ko mooy que dañu toll ci ère boo xam dafa xaw sensible mooy am jamono élection tombé aussi Sénégal aussi di exploiter pétrole ak gaz façon lobby bu nekk dugg na fi léegi nag pour sauver Sénégal moom lu mu war a def d' abord mooy fexe ba benn kan buñ ko dugal si ay lobby kenn buñ ko dugal si ay ay affaire na organiser ay élection yu libre yu transparente bañ fay tëye kenn ñu dem ci ay élection population bi déterminé xool ku la neex ñu fal ko parce que Afrique réew mu fi tàkk ci élection la tàkk te je pense que ñun sénégalais instant bi tal nañu ma réew mu tàkk. Mhm. <laughs> loolu am na. bu baax a baax Seydina kon nit tey bi am na solo et que je pense le tour hein, euh, de de de l' bu baax bon on se rendez vous kon euh, demain. en tout cas sama école suñu école bi moom boo ko gars yi defarul. waaw Kër Massar bi. ndem waa <laughs> ndem sama waa quartier moom. en tout cas cri du cœur ñoom ñëpp dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo démissionné. waaw jël seen i doom yóbbu leen. Mhm. école privée yi école mhm. privée fexe gisanteeg parents d'élèves yoo xam ne rek ñu constitué wu. waaw en euh, collectif. dem dem baare dem baare ji route nationale bi <laughs> xanaa peut-être bu ñu ko baaree gars yi daañu defal suñu école bi. alerte bi nga def tey solution solution day am léegi. solution day am solution day am. parce que tey boo duggee ci yenn école yi fi mu nekk nii. Mm-hmm. wallaahi bu récréation jotee sa yaram day daw. parce que da ngay gis ne xale yi. Mm. toilette yi. maanaam école bu def plus de huit cent élèves ay ñaari toilettes moo fay dox mhm. wala benn pare du set sax du set donc na mu war a demee du ko mhm. donc bërki démb dugg naa ci école boo xamante nii dama ne école bi li ñuy jàng ak ñun suñuy doom yi li ñuy jàng est-ce que benn la mhm. parce que boo duggee ci école bi rek donc terrain de football bi rek moo dàq stade maître Abdoulaye Wade te mi ngi fii ci ginnaaw kër président Macky Sall mu nekk école bu doy waar li ko dalee maanaam ci buntu école bi ba ca place du souvenir. Mhm. doo fa gis taxi bu taxaw. ay 4 x ay kii ngay gis. ñu wàccee xale yi borom barke mhm. mu leer na ni kon ñun suñuy doom tey jii maanaam seen ëllëg maanaam ñun bu ñu góorgóorluwul defuñu effort. Mhm. non dina métti torop. dina métti torop dina métti torop. sérieusement ñu ngi dund dund bu métti na en tout cas yàlla ñu yàlla may mag ñi dañuy wax ne ku sëg suba leerul looy def tey danga ko xam la bu baax a baax yow tamit Ablaye parce que 8h jot na à la radio aussi on a besoin de toi là-bas jaajëfal yow tamit Seydina Omar mais léegi-léegi sans plus tarder Modou Fall na sax sujet bi daanaka mhm. ci lu am solo moom la ñu ñëw sax daal di euh, yeggali ak la rubrique environnement